ma dégg la nga ciy wax situation politique bu Sénégal lan nga ma ci mën a wax ci xam-xam waxuma nag ci Cheikh ci xam-xam waxuma ay analyse yooyu jël teg mhm. mais ci xam-xam lan nga ma mën a wax situation politique bu Sénégal actuellement waaw Zouzou loolu ba ma si laajee dinaa si sawar wax bu baax mhm. ci li ma si laaj ma bëgg cee tontu tontu boo xamante ni bu mën a tegu ci xam-xam mhm. te bañ a tegu ci xel alhamdulilah xel bu sell wala dee da nga koy teg ci xam-xam bu wér ci politique yu Sénégal lenn la tënku dafa am jamono yoo xamante ni fi mu toll nii. Mhm. ndaw ñëpp. Mhm. benn nit yéene leen ci lu jëm ci politique. Mhm. muy Ousmane Sonko. dëgg la ndaw ñi waaw ñëpp ànd ak moom. ñëpp ànd ak moom. tamit wut ci ko xol yi bëree bari wut ci ko ci lu gën a bëri. waaye nag ci kaw nag moom. man mën naa wax ne su ma fi toogee ñoom ñëpp laay wax ndax. du ma wax ci moom kese. Mm-hmm. ndax kenn du ñëw ci fenn di wax kenn ndax ñoom ñëpp benn politicien leen. dëgg la daa mel ni nga jëm benn artiste rek di wax ci moom kese bàyyi yeneen artiste yu des sax waaye dañuy fiir. dëgg la. Ah, tey nag ci lu mel noonu ci moom ñett mbir dafa am. ci mm-hmm. politique pour ma ñëwal la ci moom soog laa ñëwal. Mm-hmm. lu ko gën a tënk ci ay mbiram mu gën a dem ba mbiram tëju benn côté lenn da see bokk. kan moom Ousmane Sonko. lu ko gën tëj. bokk na ci làmmiñ làmmiñ làmmiñ mhm. dëgg dëgg politicien bu amul làmmiñ du baax waaw waaye nag politicien waaw faw nga faw faw làmmiñ topp la waaw waaye nag làmmiñ dafay ànd ak ay sarax ànd ak ay sarax moom benn rawxaanu doomu aadama yi du ko wut si waaw waaye lu mu war a def ci sarax dafa des carrément sarax yu mu war a def dafa des mhm. loolu moo tax boo xat yëpp xat-xat yi yëpp mu mu dugg ci te biddiwam ak tabiam ak chiffre yu mu taxawee dafay moom chiffre am lay nekk huit boo ci moyen quatre ñaata la lay des boo ci wàññee quatre mu lay des quatre. waaw deux mille vingt quatre lañ jëm. Mm-hmm. mu nekk benn cinquième benn président boo war a yokk. waaw. atu julliti nekk rabiul awal nekk mille quatre cent quarante cinq. waaw léegi ci kaw moom fi mu toll nii boo gisee lu tax ñu nit ñi bañ mu bokk. su bokkul ci bii pour ci beneen pour waaye pour mu falu dafay métti. su bokkul ci bii nii. su bokkul ci bii. waaw ci beneen pour mu falu ci dafay métti. te pour mu am ci bopp am am ci doole dëgg-dëgg yàlla dafay tàggat keneen ndax at bu nekk ak. ku suñ borom bi fay waaw kay. léegi nag ci kaw nag moom fi mu toll nii moo tax fi mu toll nii mu doon xar tànk tubayam ci lii te xamu ne bu yàgg dañ koo jekku ci wàllu gàllaaj. Hmm. waaw ñu ngi ko jekkoo bu yàgg ci gàllaaj. ñan ñoo ko jekku ñi mu compte wala ñi muy àndal. ci am na si ñaar côté yëpp am na si ñu ko wër ñoo xamante ni ñu ngi ci tànk ñoo xamante ni doon def dara ci suuf pour bañ mu jiitu. ak ñi mu jàkkaarloo ak ñi mu jàkkaarloo ñi mu jàkkaarloo moom ñooñu moom Sénégal ñëpp xam nañ ko. nga mm-hmm. ko waxati kenn ndax di wax ne di lii ak lii dafa yomb ci moom. Mm-hmm. ñeneen bu si topp moom benn ba muy ba mu demee benn Ziguinchor. Mm-hmm. rek misaalam bu gën a gàtt dem na. Mm. ba nekk ci ay mbiram. di ñibsi. yéeg oto daanu loolu ñu mën a firi xool nit waaye dañ lay ne la nit booy dem ci dara sax sa oto fay am na mbër yoo xam ne xam ko tey ngay dem dara sa oto fay xamal ne du gaaw a baax ci yow wala yow na nga xam ne am na ñu nekk ci sa kaw dëgg-dëgg jàpp nañ sa rawxaan bi boobu noonu jàpp nañ rawxaanam bu yàgg ba yeew ko ba moom jàppoon na ne moom tamit ay mbiram dafa baax dëgg-dëgg fekk na mbiram des naagu woon na waaye te tamit lenn moo gën a nekk ci moom ndax man sax du ma ci bëgg a xuus dëgg-dëgg waaye nag damay leeral carrément benn côté mhm. ba mu sukkoo noonu rek waroon naa xam ne fa jëm Dakar fii du fi am ndam mu wàññeeku mu waaye nag fekk na bay benn way way na muus mhm. xas nga ba départ pare mhm. waaw du am ndam léegi nag loolu moo waral ba mu ñëwee ñu tënk ko foo xamante ni tëj ko ci barrière foofu ñu ko tëjoon noonu mu yàggoon foofu bokkoon na ci loo xamante lu koy jig ci mhm. moom mhm. bu yàgg wala mu fexe bu yàgg-yàgg ci moom ci jamonoy xeex bu yàgg dafa waroon a jéem a dugg sax génnaat mhm. waaw waaye nag ci kaw loolu la ko boobu yëpp cat topp na ko xeex nañ ko ci wàllu baatin bëri na ay noon yu nekk ci ñu ko sës fekk di bas di tànk pour yàqal ko dëgg-dëgg waaye nag ci kaw nag loolu nag biddiwoom fi mu toll nii teewul ne ba tey. fayul. fayul carrément ndax bu fayoon nit ñi duñ ko waxati carrément. Mm-hmm. gis nga am na xeet rawxaan yu lay boolal. Mm. ak tal sama jinne yoo xeet bu la ci dugalee. Mm. Ah, tey fii ba ilaa yawmi diini doo safati nit ñi boo doon génn di wax fii ba suba nit ñi dal lay dummoyu am na ci politiciens yu mel noonu. dëgg la yoo xamante ni fii ba suba ba ñuy wax waaye dañuy mel ni koo xamante ni. Euh, saf mënuñoo saf nit buñ doon laal junnee saafara duñ tax ñu saf nit ñi loolu nag ci sa raw rawxaan leen jël tënk ko suul ko fenn waaye loolu fi mu toll nii boo seetloo ci lu jëm ci politique bi fi mu toll nii ñu war a xëccoo benn réew mi mm. nii amut kenn instant bi koo xamante ni mm. ku ci war a jël benn réew mi fi mu toll nii kooku dafa nëbbu benn biddiwam daa kon amul leeragul kenn kon ñu fi taxaw naan diwoy nekk président diwoy nekk président yow daal si sa xam-xam yow loolu amut loolu amut ndax kooku dafa nëbb biddiwam kooku dafa nëbb biddiwam te biddiwam ay Amadou Ba mi nga xam ne riir maa ngi jóg hmm? du Ousmane Sonko mu ñu riir mi jóg kon ki war a nekk président Sénégal biddiwam génnagul biddiwam génnagul biddiwam dafa nëbb surtout jamono jii dafa nëbb biddiwam ndax tey kaa ma wax la lenn loo xamante ni hmm. ci wàllu lu jëm ci président hmm. tey Macky Sall mais nekk ca palais wala dara. Hmm. mooy nu nit ñi di seetee noonu lañ koy seetoolee ay ñu war a fal wala diw. waaw biddiwam day am doole. waaw chaque jour am na ñu koy seetal. ñu tàng jër la yor ñu tàng jër ñoo xam hmm. ne dañ koy seetal. Hmm. waaw ñoo xamante ni chaque jour dañ koy seetal ne ko fii ak fii ak fii waaye te loolu ma nga commencé dëgg-dëgg te ba sog ba amee ba otoom ba buggee woon lakk. depuis boobu ba léegi bëri nañu koy defal wàllu. ay seet saa sune ne chaque jour ci luy xew ci réew mi. yow loolu ci lan nga koy xamee yow xalaat ngay wax wala danga koy faral di gis. ci baax loolu nga koy gis ci wàllu seet. waaw waaye nag. dina ñëw ci loolu waaw. waaw d'accord mais léegi loolu. waaw loolu koy maye dëgg-dëgg. du tëdd Dakar fii di nalaw. da nga dugg ci àll bi. faw nga dugg ci àll bi. yow tamit tëju ci ay mbir. ay nangami jour di wird.